yéen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëggee jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Faaida TV ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot waaye bu leen fàttee ba cloche de notification. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoo bu matale di nuyoo bu lislaam di ñaan jàmm ji ci sunu borom dëël yàlla nañ ko defal àdduna ak àllaaxira di jël nuyoo bi. di ko jàllale ci ki nga xam ni mooy kilifa jataay bi tembe muy suñu sëriñ di suñu sëriñ maanan wa lafzan di imam Cheikh Fadilu Lo di nit ku baax nit ku sell toog bi ñu toog nii si kaw sax maa ngi ko wax sëñ waaye ndigal lañ ci am rek mu diis gan ci ñun ndax moom mii toog bi Imam Fadil Lo dafa bokk ci ñi nga xam ni dañoo joué ci suñu carrière scientifique lu rëy rëy rëy ndax mën naa ni daaraam mooy daara ji nga xam ne ba fii may waxe géew jógee gu fa ndax ginnaaw ba fa jaaree jàng alquran ci loxoom ak lu bari ci xasida daaraam laa njëkk defee kuréelu xasida mokkale fa xasida bushra lana qad ataana al judu wal karam xale yi doon jàng fii am na ci ñoo xam ne ci daara jooj lañ bokk muy koo xam ne loo xam ne yàgg na ndax li may wax def na ñaar fukki at kon nag suñ ko fekkee ci jataay bi euh, muy suñu kilifa dañuy jël nuyoo bi teg ko ci loxoom waaye di ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam nit ku sell bu baax la ku bëgg lu baax Euh, ci lu yàggul rek damay waaj yoonu Maroc ñëw di ko tàggu mu boo demee ba Maroc na fexe ba na nga dem ci barabu Seydina Cheikh Ahmad At-Tijaani te boo fa demee nang ma ko ziyaaral ndigam lool ndigalam loolu yokk na li ma gën a gën a soññ ba bi ma demee Casablanca ak Fès def na plus de trois cent kilomètres waaye bu sama xel demee ci moom rek dama gën jaajuwaat ginnaaw li sëñ Touba wax ci Seydina Cheikh dama gën a jaajuwaat takku dem ba ca barab ba ziyaare ko waaye ziyaareel ko ko kon ñu ngi koy ñaanu suñu boom guddal fanam waaye di beral ñu suñ Xaadim Faal jëwriñ di ko ñaanal moom it di muy jokkoo man ci lii aw ma woon njort ni dina ma fi fekk waaye ginnaaw bi suñu borom def lépp ci tawfeex sëñ Touba ba mu fekk ñu fi kon nag ñoo ngi ñaan jataay bi yàlla na sëriñ bi nangu mel ni thème bi nga xam ne moom lañ jëloon pour war ko waxtaane mooy shawqu cheikh al xadim li xabibihi al karim al mawlid wa ziyaara namuzajan maanaam cofeel bi cheikh ahmad bamba xadim rasul am ci soppeem bu tedd bi shawqu cheikh al xadim li xabibihi al cofeelu sëñ Tuubaa ci soppeem bu tedd bi di yonent saa waaye nag ñu jël gàmmu ak ziyaare ji yonent bi comme modèle ñu def ko moom ndax Sëñ Tuubaa mooy koo xam ni fànn bu ñuy bëggee yonent bi sallallahu alayhi moom boo ko demee da koy fekk mu raw ca ñëpp bu ñuy bëggee yonent bi rek fànn buy wone ak cofeel ci yonent boo demee da koy fekk mu fees ko dell moo xam topp sunna yonent bi la moo xam jëfe alquraanul karim la moo xam dégg nga gàmmu la moo xam tagg yonent bi moo xam moo xam moo tax ñu jël rek ñaar yoo xam ne dafay correspondant ak mbooloo mi ak seen yitte ju kawe ju màgg ji nga xam ni moom lañ fa séenee defi ca a waral ñu jël gàmmu ak ziyaare yonent bi def ko model ci waxtaan wi mu wane cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xam ngeen yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo wax ni ana walla di aadama wala faxra nee na lu aadama jur maay sa sang te ndamuwuma ko nag loolu sallallahu daana ko wax saxaaba yi wax ni lépp lu aadama jur man maa ci gën maay sa sang te waxewuma ko waxum ndamu xëy na day dugg ci waxu ak at taxaddus bin am ndax moom suñ borom daf ko forcé ni ko li ma la defal ci ay xéewal waxtaane ko comme ni mu ko forcé woon ni mu ko farataale woon rek ci ñi ko jiitu woon ci aw xeet ndax suñu day bëgg bu la defalee ay xéewal ak mu xéewal yi toll rek wax ko te bañ koo defu ndam wax ko te def ko cant dañuy wax ni ak cant ak ndamu nag dañoo nuroo dañoo nuroo li leen tàqale du dara lu dul yéene fi mu ne kiy sant di wax ay xéewalam ak kiy ndamu ñoo nuroo lenn rek moo leen sepaare mooy yéene kii daf koy def ngir wane ni lépp suñ borom la duma ci dara kii nag daf koy def wane ni moom lépp moom la suñ borom bu ci dara loolu rek mooy mooy mooy moo leen séparé moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, di koo xam ni bëgg ko faratale ci ab jullit bëgg yonent bi sallallahu sallam bokk na ci li wane ni farata mooy lim wax ni laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min maalihi wa waladihi wannaas ajmain min maalihi wa waladihi wa walidi wannaas ajmain wa sallam nee na kenn ni ci yéen du mat lu dul ni dama ko gënal alalam gënal ko doomam gënal ko ay wayjuram dégg nga waaye gënal ko mbindeef yépp fi ne ab jullit li fekk àggul ci làmb ab xolam yëpp ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko gënal ci lu yàlla bind ak ngëmam des na Seydina Omar ibnul Xataab ibnu Hisham moo nettali noonu nee bis dañoo ànd ak yonent bi Seydina Omar jàpp ci loxob yonent bi ni ko yow yonent bi yàlla bi lu yàlla bind yaa ma ci gënal ba des sama jëmmi bopp yonent bi ni ko laa yaa Omar ni ko déedéet sa mënta mat lu dul ni dama laa gënal sa jëmmi bopp Seydina Omar fi saasa mu waat ni ko wallazi nafsi bi yadi maa ngi lay waatal ci ki nga xam moo sama nos ni bis ni ki tey yaa ma gënal sama jëmmi bopp yonent bi ni ko al aan yaa Omar ni ko fi ne day sa ngëmam yi door a mat kon ndeke Seydina Omar li mu doon gëm-gëm ba ci jamono boobu ngëmam des na te lenn rek ka ko manquil mooy jàpp na ni sama bopp ma la jën gënal du bañ naa la di wolof di wax loolu na war a jëfe mooy moom yonent bi moom bëgg na ko waaye nag boppam a ko gënal yonent bi corrigé ko ci bis boobu kon ca la doxe ni ko yaa ma gënal ci lu yàlla bind yonent boobu nag waxtaani cofeelu Sëñ Tuubaa ci moom dana baax tam ñu leeral cofeel gi yàlla am ci moom yàlla mi ko bind ci boppam boo fekkee alquranul karim da gis ni suñ borom di mu xaata ba ak moom nga xam ni ku mu bëgg lay waxal donte nag des fois suñ borom di waxe ak uluhiyaam di waxe ak rububiyaam yenn saa yàlla waxee moom noo xam ni day wane ni nag man maa yàlla ak lu mënti xew man maay borom bi des moom mu xaataba ak moom noonu waaye nag ci biir lool da gis ni mi ngi wax ak ku mu bëgg danañ ci joxe rek ay misaal bokk na ci dëfal gi mu koy dëfal mooy bi nga xamee ni alquran def na ay fan wàccatul ba yéefari màkka yi tàmbali di saboote yonent bi ak di ko ree naan moom de yàlla di ko seytaane sax la wax di ko daan wax alxuraanam ji dafa mel ni ñëwatul fi mu ne dafa jaaxle yonent bi tam am na tiis ci loolu ndax toog na ay fan gisul jibril te nag wa maa yantiqu anil du sos du jeg saay di sosal yàlla mënta wax dara mu mel ni ku muuma ni koy wax loolu di ko wax loolu ba bis yàlla war a wàcc aaya waaye bi muy wàcc aaya ji daf ko booleeg waat ak di ko defal di ko waat ci ni ko wadduha wa layli iza saja maa waddaaka ndax dañ doon wax yàllaam ji bàyyi na ko yàllaam ji wàcc na ko yàllaam ji da koo mere suñ borom ni wadduha waat naa ci yoor yoor xëy na secret yaa ca nekk secret ya ca nekk tax yàlla wàcc wal layli iza saja waat naa ci guddi su demee ba lëndëm maa waddaaka sa boroom wacc la bàyyiwu la maa waddaaka rabbuk wa maa xalaata it soxarewu la dafa fekk ni rek wala laaxiratu xayrun laka min lam la dencal ëllëg moo ëpp fuuf doole moo gën ci yow it lu lu njëkk li te mooy àdduna wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda te gaa yi di la saboote bis booba yàlla dina la jox di la jox di la jox ba yow yaay waxal sa bopp ni doy na fatarda mooy ba nga d'accord ba nga gërëm ni suñ borom doyal naa sëkk li ma jox doy na bis boobu saxaaba yi dañoo woy bayit bu neex di wax ni sami'na fi duha wala sawfa yu'ti fa sarra qulubana zaaka al ataaw fa xaasa ya rasulallahi tarda wa fiina man yu'azzabu aw aw yusaaw dañoo wax ni dégg nañ ci Wadduha lu ñu bégal ñun saxaaba yi dégg nañ ci Wadduha lu sedd suñu xol te mooy wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ndax li bégal suñu xol mooy xam nañ ni yow yonentub yàlla bi sore ngaak sore ngaak yàlla di la jox nga naan ko doyal naa te fekk ci sa xeet wi am na ku des kuñ war a mbugal wala kuñ war a dugal safara doo seetaan loolu mukk naan yàlla doyal naa te fekk am kuñu war a mbugal wala kuñ war a dugal safara loolu moo ñu bégloo ba ñu xam ni ñun xeet yi yëpp aljana lañ jëm ndax yonent bi du wax mukk ni doyal naa te fekk am ku war a dem safara lii saxaaba yi seede nañ ko keroog ci suratu duha bi ko suñu borom ne wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda bokk na ci tam mooy yonent yëpp ba ci ulul azmi yàlla woowe na leen yaa yaa yaa yaa yaa Muusa yaa Nuux ihbit yaa Haaruun yaa ibrahim yaa daawud waaye doo fekk ci alquran mukk suñ borom bi te yaa ci langue arab li muy définir rek mooy sàllalu yàlla nag moo ko sañ ci ab jaam ndax yonent yi maqaama buñ mënti am ay jaami borom bi subhaanahu wa taala ee eh, diw ee eh, diw waaye defu ko mukk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu dul nit danaan ko yaa ayyuhal mudaththir waaye mësta jaar ni yaa tudd aw turam directement loolu tam day wone cofeer goo xam ne am na ko ci moom ci gàttal rek bari na loo xam ne mën naa jël temps bi bis bi nga xamee ne ay soxnaam mbiri jigéen dal na leen ci ni muy dale kenn ku nekk rek ci ñun ci sa soxna ñu xëy matériel soxna yiñ dëkkal xëy na ñu ngay sol lu rafet ñu ngay sol lu taaru ñu ñëw sonal ko ni ko defal ñu nangam defal ñu nangam soxna yi diw yi soxna yi diw yi ah suñ borom daa wàcc aaya ni ko sa soxna yi woo leen nag nee bu fekkente ni nii àddunaa leen tax a jóg kaay ma fasanil bu la kenn sonal ah yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika in kuntunna turidna alxayaata addunya wa zinataha fa taalayna umattiakunna wa usarrahkunna sarahan jamila yow mi ñu solo wool sa soxna yi nga ni leen bu fekkee privilège ak matériel àdduna moo leen tax a jóg kaay leen ma jox leen muta muta mooy li ngay jox jigéen su fekkee yow yaa ko fase su fekkee ñaanu la baat kaay ma jox leen muta ngeen dem te ma fase leen fase mu rafet waaye nag wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daar al axirata fa inna allaha a lil muxsinaati minkunna ajran azima bu fekkee nag yàllaa leen tax a jóg akub yonentam ak kër gu mu juga muy alaaxira ah ñëw leen ànd ak man xam ni yàlla waajalal na leen fay gu rëy ak àjjana ju yaatoo yaatu soxna ya daan ko ah kon nag tànn nañ yàlla akub yonentam ak kër gu mu juga muy soxna yu yàlla dimbil kon yooyu yëpp day wone ni yàlla bëggul kenn di sonal yan chal muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ci ci lenn bu nu ñëwee ci ay saxaabaam ci tënk rek ndax dañoo bëgg ñëw xuus ci suñ tubaab ak cofeelam saxaaba yonent bi nooñu lañ ñàkke woon cofeel ndax bokk na ci niñ meloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy daawuñu xëy bis mënuñ ko woon a muñ bisub lëmb douze heures de temps te demuñu kër yonent bi loolu moom mënuñ ko woon moom te demuñu jàkkaarloo kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan fa def wal wal wal wal wal ba alxuraan wàcc sax di leen yedd ci lool di leen wax ni li ngeen di def ci yonent bi jaaduwul yaa ayyuha allazina amanu ndax laa tadxulu buyutan nabiyyi illaa an yuuzana lakum ilaa taamin gayra naazirina inaam ilaa aaxiril aaya waa léegi yéen ñi gëm bu leen di duggati ci kër yonent bi wala néegam lu dul ni da leen a jox ndigalul dugg si leen ci biir néeg foofu ngay jànge taalibi gi nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu yee salaat na ko ci yoonu ci yoonu murit ndax lii yàlla moo ko njëkk a wax sahaaba yi ni leen ngeen di duggati néeg yonent bi dee leen yëglu te kuñ ci joxul ndigalul dugg bul dugg te bu ngeen duggee xayra naadirina inaahu bu leen xool ndabam wala bu leen néggandiku ndabam ndax ñaari baat yëpp dafa mën a firi loolu bu leen négganiku ndax li ñu defal yonent pour moo ci xewlu bu leen di xaar ak a lijjanti lu ca nekk wala ngeen koy teg bët walakin isa duaytum fadxulu su fekkee nag moo leen woo dugg leen ngeen lekk bu ngeen lekkee ba pare bu leen fa toog di wéttali ko waxtaan waaw bu leen fa toog di wéttali ko waxtaan génnaat leen ndax loolu mën naa lor yonent bi te du mu am kersay wax leen ko yàlla nag amul kersa ci wax leen li ngeen war a def kon lii day wane cofeel bu borom bi am ci euh, sallallahu alayhi wa sallam di ci corriger saxaaba yi nga xam ne ñoom it seen cofeel noonu la meloon euh, Urwatu bnu Mas'ud ath-Thaqafi wax na ni ra'aytu rasulallahi loolu mi ngi ci Buxaari wax ni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam boobu mu ngi ci muslim bi may wax ni wax ni wal xallaaqu yuxalliquhu wa qad ataafa bihi asxaabuhu fama yuriduna an taqa sha'ratun illa fi rajuli minhum nee na man maa gis yonent bi watkat bi di ko wat kooku anas moo ko nettali watkat bi di ko wat nee na ma gis ci jamono boobu saxaaba yi wër ko wër ko nee na bi ma xoolee li ma jàngat mooy bëgguñu lu dul kawar wadd ba njëkkante ko bëgguñu lu dul kawar yonent bi wadd ba njëkkante ko jël ko barkeeloo foofu la tasawuf jële barkeelu barkeelu ci kilifa gi nga xam ne moo dox sa digganteeg sa borom du bidaa te lii mi ngi ci li ma wax nii mi ngi ci muslim bi nekk ci buxaari te masmadu bnu saqaf masmud euh, nettali nettali ko dafa wax ni fa wallahi maa tanaxama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nuxaamatan illa waqaat fi kaffi rajulin minhum fa dalata biha wajhahu wa rijlahu nee na waat naa ci yàlla ni yonent bi yàlla bi mësta xaaxtandiku mësta xaaxtandiku lu dul ni xaaxtandiku boobu dafa rot ci loxol kenn ci ñoom mu diw ko ci kanamam ak yaramam ak ci yaramam nee na wa iza amarahum ibtadaru amra su leen digalee dañuy njëkkante ndigalam wa iza tawaddaa kaadu yaqtatiluna yaqtatiluna ala wadu'i nee na su yonent bi day jàpp dañuy njëkkante ndoxum njàpp mi dañ koy njëkkante ngir jàppoo ngir ngir barkeeloo ko nee na wa iza takallama xafadu aswaatan su yonent bi dee wax dañuy wàcc seen kàddu ba kenn du dégg dara wax yonent bi rek la ñuy dégg loolu nag bu ñu demee ci suratul xujuraat yàlla moo leen ci yar moo leen yaa ayyuha lazina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi walaa tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum kon ñàkk bëgg yonent bi mën naa yàq jëf nit mën naa julli lool mën a woor lool mën a natt asaka lool waaye alquran moo ni ñàkk woor ma yonent yi mën naa yàq seen jëf yooyu yëpp an tahbata amalukum wa antum la tashurun te amal fu ko alquran waxee rek mooy jëf yi nga xam mën na laa yóbbu aljanna te alquran nee na ñàkk mu war ma yonent muy wax ci kaw ngeen di wax ci kaw wala ngeen koy woowe ni ngeen di woowante seen diggante naan ko eh Muhammad nee na yooyu mën naa yàq seen jëf te du kon kii mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam saxaaba fii lañ ko tegoon ba ci daal yi sayyidatna Aysa wax na ci lu bari muy les choses montagnes yi lañ ko bëggoon bis yéeg na ci montagne yu jabalu Uhud moom yonent bi ànd ak Abu Bakr Siddiq ak ki nga xam ne ni mooy Seydina Omar jabalu Uhud daal di yëngatu ngir bëgg yonent bi ne ko usbut yaa Uhud dalal yow Uhud da nga xam ni ab yonent moo nekk ci si kaw ak ñaari shahid kon yonent bi sallallahu alayhi jamaa daal yi sax dañ koo dañ ko bëggoon bu ñu ñëwee ci Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul nga xam ni moom lépp lu ñuy jël misaal mu jëm ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom daf cee jeexoon tàkk waaye bu ñu jëlee li nga xam ni mooy modèle waxtaan wi te mooy gàmmu ak li nga xam ni mooy ziyaara ji yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kooki da ngay gis Seexul Xaadim nim ci feese ndax moom dafa li ñuy wax euh, euh, euh, li ñuy wax jeex tàkk defe moom la wax wax fanatisme ci langue tubaab mooy koo xam ni daanaka bu fekkoon xel te bëgg dëgg bu fekkoon waxtu yu may nañ ko danañ ko leeral bëgg dëgg définition yi ci boroom xam-xam yi joxe bari na waaye bokk na ci bëgg cofeel mooy koo xam ne dafa jël sam xel dafa jël sam xel ak sa xol maanaam yow mënatoo def dara mënatoo xalaat ndax moom mënatoo am tranquillité ci sa njaboot ndax ki nga bëgg bëgg dëgg mooy loolu mënatoo jaay commerce bu jaar yoon mënatoo ko ndax toujours ki nga bëgg day présenté wu ci sam xel ak ci sa xalaat rawatina nag koo bëgg te mënoo koo gis physiquement maanaam bokku leen jamono boobu moo ci gën a méttee ndax bu dee ki nga bëgg sax te mi ngi dund yaa ngi dund donte dafa nekk États-Unis d'Amérique yow xëy na bëgg gi mën na laa pousser nga def ay pexe. ba dem teg ko bët bët gi da yóbbu ci foo ko gisee say rangoon di tuuru te doo xam lu ko sabab ngay jooy loolu yaakaar naa bu ñu misaalee ci mbiru àdduna dangay gis koo xam yàlla da koy natt wala sax seytaane la da koy nattu ci mu bëgg Michael Jackson wala mu bëgg benn star bëgg koo xam ne bu ko gisee rek day day day say ay rab di yuuxu daal di tàqalikook sagon dëgg dëgg bëgg noonu lay def moo tax sëñ Tuubaa amul kenn kum def ci noon ci yow ci noon ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa ba tax sax mu ni ku ne xam na ni doom am na cofeel almaalu walbanuun zinatul xayaati dunia suñ boroom a ko wax lu naturel la kenn mënu ci dara yàlla moo ni alal muy matériel ak njaboot taaru àdduna la nit da koy bëgg xol da koy bëgg waaye sëñ Tuubaa nee na moom mahat mahabati al muxtaara sayidana xubbil magaaniya wal ahliina wal walada moom daa dem ba cofeel gi mu am ci yonent bi tax na mënatula sentir amour bi nit di am ci doom mënatula sentir amour bi am ci matériel wala lenn lu war a bëgg ci kaw suuf ndax bëggum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg googu xam ngeen ni moo ko poussé ci ñu jële ko fii exilé ko lu mat huit ans yu manqué tuuti waaye mën naa sax fanweeri at ak ñett mu nekk ko ci loxol tubaab bi loolay kat wax na ko fu nekk bu ngeen demee ci assiru wax na ni bëgg googu rek moo tax xusuuriya xalat wal ahlu anni tafarraqat li mat illasi anul madi yu qasiru nee na loolu moo ko sabab bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy koo xam ni tam bu ñu ci lu jëm ci gàmmu abiyaat yu baree bari dañuy fekk Cheikhul Khadim di ko wax ci gàmm di wax bu gàmm masaana teru day xool weeru gàmm xam ngeen ni kuy wax ak temps sëñ Tuubaa rek lañ ko fekk koo xam day wax ak weeru gàmm di ko dénk bu gàmm ñëwee mu naan ko laka aqulu marhaban lil muntaqa yaa man haba bihi wa alayka tiqa yow weeru gàmm maa ngi lay wax marhaban mooy bienvenue maa ngi lay wax dalal ak jàmm ngir jëm ni yonent bi ñu tànn yow mi nga xam ne nii yaa ñu ko ëndil yow weer wi yow ñu ko ëndil maa ngi lay wax dalal ak jàmm yow mi nga xam ni yaa ko yëkkati ak yëkkati di wax ni alayka ahmadu lazi qad atlaqa kulli li wajihi wa lastu mumliqa nee na ko ci yow lay sante yàlla mi nga xam ni nii moo booyal sama lépp mën sa jubaa toppatuma dara yàlla moo booyal sama lépp yàlla mi booyal sama lépp maa nga koy sant ci yow weeru gàmm maa ngi koy sant ci yow ngir jëmmam te nag cant gi may cant yàlla ci yow weeru gàmmu las ko mum liqa du ma ci du ma ci li ñuy wax maanaam euh, li ñuy wax yokkat du ma ci yokkat maanaam sonn ci dara daal maanaam duma ma sonn ci dalal la yow weeru gàmm ak ak dundal la yow weeru gàmm di wax ni daani ila ihyaai za shahri kawluhu li xayril wara warfan xawaa kulla subdadi nee na li ma poussé woo ma jëme ma ci ma dundal weeru gàmmu mooy li mu nekk di ngën ji mbindéef moom yonent bi sallallahu nga xam ni lépp luy ak cànge làq na ko lépp loo xam ni lu ñuy sangee la di ci féete nit kaw yonent bi moo ko làq xawaa kulla suddadi nee na weeru gàmmu moo ma woo ci ma màggal ko ngir ngën ji mbindéef di wax ni yaa xayra shahrin jaa bi xayri mursali azhabta qatan maradi wa kasali xoole sëñ Tuubaa ndeke da daan tawat li nit di yëg ci yaram da ko daan yëg waaye bu weeru gàmmu masaana teru rek day wér peleng dootul yëg feebar mu ni ko yow mi nga xam ni nii yaay ngën ji weer indil ñu ngën ji mbindéef eh, waaleykum ñu ngi dalal baax sëriñ Baye sëriñ Baye bismillah tafaddal eh, Baye sëriñ Baye di sëtu Cheikh Sadio Baye mooy dugg si ci mbooloo mi di suñu wëllëre bu baax moom it ñu ngi koy dalal bismillah su ko defee daan wax ni yaa xayra shahrin jaabi xayri mursali asabta qataan maradi wa kasani yow ngeen ji weer yow mi nga xam ne yaa andi ngeen ji mindeef sa dëgg-dëgg yóbbu nga sama feebar yóbbu nga sama tayel doonte moom sëñ Tuubaa ñi ko xam mi noonu ko xamoon nañ ni ak tàyyel lu ko sori woon la ba kenn mënul woon ak dundandoog sëñ Tuubaa ci rigueur bi mu doon dox te loolu sax li koy seede mooy xool leen li sëñ Tuubaa liggéey ci at yim fi def kooku ku tàyyeel mënu ko waaye ci ak suufe suufe suufeloom daana wax ni yow weeru gàmm yaa yóbbu sama feebar waaye yaa yóbbu yi nga xam ni moo nekkoon ci man daan wax ni yaa xayra shahrin jaa bi xayri mursali mubashiran mahawta an nii kasali kasali yow ngën ji weer indi ngën ji mindéef di ñu bégalee yonent bi sallallahu alayhi de yow effacé nga tàyyeel gi nekkoon ci man di wax ni anni mahawta kasali wa wajali wa xayrati za asmatin min xajali yow weeru gàmm ya effacé ci man sama tayeel ya effacé ci man maanaam ak jaaxle ak njàqare waaye itam ya effacé ci man sama maanaam euh, réer gu nekkoon ci man waaye tam nga def ma may boroomu kaaraange ma mucc ci li nga xam ni mooy gàcca wax ni saadati azharaha rabiu al awwalu lazi huwa gis ngeen sëñ Tuubaa li ma doon wax ci waxtaan bu mujj bi ñu def ci guddi àjjuma yi ñu doon waajal ca jaalibatu maraaxib sëñ Tuubaa ni mu jekkoo li ñuy wax jinaas indi na fi ñaari rabia yu bokkul te dégg arab gum dégg arab moo ko moo moo ko waral mu wax ni saadati azharaha rabiu sama texe feeñal na ko ñu ni ko lu feeñal sa texe mu ni rabiul awwalu lazi huwa rabiu mu ni weeru gàmmu bi nga xam ni mooy weeru naataange arabian ci langue arab day firi benn période ci ñeent période yi am na ci période bu ñu wax xarif am bu ñu wax rabian muy weer wi nga xam ni mooy weer di gàncax gi di ñor di verte muy weeru naataange mu ni ko nag yow weeru gàmmu yaa feeñal sama texe yow mi nga xam ni mi yaay weeru naataange kon rabion bu njëkk bi rabion awwal la muy weeru gàmm rabion ñaareel bi di firi naataange muy li firi naataange ba tey it wax na ko ni ko wajjaha lii mawlidu xayri mursali xalaawatan tuxjilu taamal asali aw taamal asali nee na weeru gàmm wala gàmm ci boppam gàmmu ngën ji mindéef muy juddug yonent bi nga xam mooy ngën ngën ji mindéef jox na ma mën sëñ Tuubaa bànneex boo xam ni gàcceel na bànneexu cafkat lem nee na waxin la waxin la ay ay ay la ah dalaa bëgg a wax ni lépp lu nit di mus di ko tàqamti ko muy neex ba mel ni lem weeru gàmmu musal na ma lu dàq loolu jox na ma lu dàq loolu moom gàmmu wax ni ilayya xutta muxjilan lil asali min xayri rabbin xayri baaxin mursali wax ni yow weeru gàmm yaa ma jox lu gàccaal caf kak lem yaa ma ko ëndil lu gàccaal caf kak lem yaa ma ko jox jële ko ci ngën ji boroom te mooy borom bi subhanahu wa taala laka alayya rabiu xaqu duunaka anta bihi a xaqu ah weer yépp baax nañ de weer yépp baax nañ waaye yow weeru gàmm am nga ci man Sëñ Tuubaa àq joo xam ne nii yaa ko ëpp la yeneen weer yëpp maanaam weeru koor weer wu baax la rajab weer wu baax la shaabaan weer wu baax la weer yëpp weer yu baax la te bu ngeen demee ci asiiru gis ngeen sëñ Tuubaa weer yëpp tudd na ko tàmbalee ko ci muharram bi première mois ba ci zulhijja bi dernier mois weer yëpp tudd na leen di taasu ci seen barke te it weer yëpp la dundal waaye nag nee na weeru gàmmu moom am nga ci man sëñ Tuubaa àq joo xam ni geneen weer amu ko ci man laka uh, yaa rabi uh, laka alay yaa rabi xaqu duunaka maa anta bihi axaq te nee na xaq jooju nga am ci man yaa ko gën a yeyoo ku dul yow ku dul yow weeru gàmm yaa gën a yeyoo xaq ji nga am ci man uh, weeru gàmm wax ni faaqa rabiul awwali suhura bi mawlidi lazi badaa suhura fii dafa am lu muy lu muy leeral ndax ñu bari jàpp nañ ni weeru koor mooy ngën ji weer loolu nag alxuraan saxalu ko xayrun guddi gu gën gën ci guddi gu gën junni weer mi ngi ci biiram waaye alxuraan saxalul fenn ni weeru koor moo gën ci weer yi nee na moom weeru koor moom yaa féete kaw mbooleem weer yi moom loolu weeru gàmm nee na weeru gàmm mbooleem weer yi xam nga lu tax cofeel gi am ci Sëñ Tuubaa te loolu man dinaa ko misaale lu bare bari cofeel gi mam ci yonent bi sallallahu alayhi bu ñu xoolee yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daf koo tànnal ci kaw tànn Mustafa Muntaka ban dëkk la ko wàcce dëkk bi gën ci dëkk yi ban ban ban ban tur la ko tànnal tur yi gën ci tur yi tànnal ko way jur bi gën ci tur yi ci jamono boo xam ne li amoon mooy Abdu Shams jaamu jant bi abdul hajar jaamu doj bi jamono boobu noonu lañ daan tudde turi moom yàlla tànnal ko turu abdullah mooy turu way juróom ci moment boo xam ni yooyu moo xewoon yàlla tànnal ko tur wi gënte mooy amina amina li muy firi mooy lu am sécurité bu fekkee dañ koo féminin al amin mooy lu am sécurité bu dee dañ ko masculin aminatu mooy ku am sécurité moom la ko yàlla tànnal ba ci xattaa ki ko nàmpal muy euh, ki nga xam ne mooy xalima euh, xalima ci turu yàlla yi la bokk ci quatre-vingt-dix-neuf noonu borom subhanahu wa dañ koy fekk alxalim bu dee dañ koo masque leewal buñ ko famille féminin la muy alxalimatu mooy koo xam dafa lewet lool yàlla tànnal ko ngën ci dëkk gis nga tànneef ci biir tànneef waaye jël téere bi gën ci téere yi jox ko ko jox ko ko kon xel war naa bàyyi xel ni kon weer wi mu juddu wërta mën a nekk lu dul ni mooy ngën ci mooy ngën ji weer ala lazi wulida xayra waladi wa xayra walidi bi xayri baladi ngën ji dëkk la ko yàlla tànnal mu nekk ngën ji way jur kon weer wi feeñ moo tax sëñ Tuubaa ni faaxa rabiul awwali suhuura nee na rabiul awwal kawe na weer yëpp bi mawlidi lazi badaa basuura te li ko def mu kawe moom weeru weeru gàmm li ko def mu kawe weer yëpp moom weeru gàmm mooy ñi ko amee ci daraja yi juddu ki nga xam ne nii mooy ngën ji mi def mi ci feeñ wax ni shahru rasulillahi bahdatu shuhur nee na weeru yonentu bi yàlla bi mooy taaru weer yi weer yëpp dañuy puukare woo ci weeru gàmmu fukki weer yi ak ñaar fukki weer yi ak benn yëpp dañuy puukarewu ci weeru gàmmu dañuy puukarewu ci weeru gàmmu wa ramadaanu gis nga day bañ sa xel am fu dem mu ni la wa ramadaanu shahru itqin wa tuhur di la wan ni li may wax xam naa ko xam naa nag weeru koor weeru jot la ci safara weeru laabal la ci ay bàkkaar waaye nag weeru gàmm moom mooy mooy taaru weer yi mooy taaru weer yi kon Sëñ Tuubaa fii la tegoon li nga xam ne nii mooy weeru gàmm di koo xam ni teel na ko dundal lool daanaka bi muy dundal weeru gàmm boobu wuy juram mi ngi ci kaw suuf waaye fesalu ko woon ndax xam ngeen Sëñ Tuubaa ci ay teggiinam euh, nangul woon a yëkkati ni ko euh, irwaa na di waxe nangul woon a yëkkati dara baa mu teg dara ngir wormaale ko maam Mor Anta Sali waaye weeru gàmmu moom teel na ko uh, màggal loolu lu jiitu sax muy sos yoonu yoonu murit lu jiitu muy dem ci géej gi ahyaytu mawlidan nabi min asashi nee na depuis mille trois cent un mille trois cent un ci laa tàmbali woon a dundal weeru gàmmu man Cheikh Ahmad Bamba Xadimu Rasul wan qaada li fawqal muna fii hamsashi nee na moo tax biñ demee ba mille trois cent cinquante six weeru gàmmu wommatu na jox ma lu kawe njort jox ma xéewal yoo xam ni kawe na lépp loo xam ne nit daf ko doon daf ko doon wut wax ni mallattu mawlidan nabi min asashin kitaabati waqaadani min jamsashin nee na jox naa juddug yonent bi depuis mille trois cent un laa ko jox sama xalima nee na 1301 laa jël sama xalima jébbaloon ko weeru gàmm chaque weeru gàmm mu bind xasida gu yees tàq jagleel ko li nga xam ne weeru gàmm nee na defal naa ko weeru gàmm di soññee tam di encouragé pour képp ku lay découragé loo ci gàmm ci wax ju mënti doon moo xam danaan la bidaalaat yonent bi defu ko woon ak Sëñ Tuubaa teel défier ñooñu encouragé ñiy màggal gàmm wax ni leen mawliduhu muazzam mubarakun muhtaram taadimuhu yanxatimu ala zawi taqaddum xasida gu ngeen miin la ca jazbul xulub wax ni màggal li nga xam ne nii mooy ak juddoom moom yonent bi salaa sallam nee na lu ñu lu ñu réyal la ca yàlla lu ñu màggal la itam tey lu am barke la tey lu ñu warmaal la ca yàlla te nee na maa ngi leen di xamal ni màggal ko war na dafa jaadu yan xatimu ala zawi taqaddumi ñi nga xam dañoo jiite képp ku jiite ak kuréel wala nga jiite ab quartier wala nga jiite ab daayira zawi taqat bi daa jeex na ba sax boroom kër bi ne ci këram nga xam ni mooy kër gi mooy jëwriñu kër gi sëñ Tuuba nee mu gàmm war na ci moom nee na ta'zimu yan xatimu ala zawi taqaddumi képp ku jiite rek war na la nga màggal li nga xam ne mooy gàmm ta'zimuhu bi sunnati yaquduna li jannati bihi izdiyaadul minnati li muxlisin muazzimi nee na màggal guddik juddu yeneen saa sam te teg ko ci sunna lan mooy sunna mooy jàng alquranul karim ku la ko mën a génnil ci sunna day caaxaan eh, mooy lan mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da dul tem waxtaan wi waaye tagg yonent bi sallallahu alayhi yàlla moo ko njëkk a def ci alquran dañuy wax toujours wa innaka la ala xuluqin azim aw tagg wu rëy la waaye sax du tagg woowu kese lu bari da ngay fekk ci alquran suñu borom di ko tagg wa innaka la ala xuluqin azim dëgg-dëgg some somewu rafet jikko yow sallallahu alayhi wa sallam yaa ca toog yaa nekk ca kaw rafet jikko daal yow yow yow yow yaa ko yor euh, boo demee fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan galida alqalbi lan faddu min hawlika aw tagg la saxaaba yi yërmaande gi yàlla def ci yow moo tax ñu bëgg la sopp la waaye boo nekkoon ko xatub xol gaaw a mer saxaaba yi duñ nekk ci sa wet la wër duñ def saa bu xëyee bi aw tagg la cest à ku baax nga yow Muhammad sag lewet ak yërmaande gi nekk ci yow moo tax saxaaba yi bëgg la jublu la yow sallallahu alayhi wa sallam aw aw aw tagg la kon taadimu bi sunnati jàng alquran tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii firndeel sunna la ginnaaw alquranu karim mooy moom ci boppam Kaab tagg na ko ba summi manto bi mu solo joxal jox ko te tagg Kaab woowu xaaru ci woon loolu moom Kaab lam ca doon xaar mooy mucceel deretam ndax lu jiitu tagg woowu dafa xas yonent bi ŋàññ yonent bi ŋàññ yu doy waar ba yonent bi daganal deretam ni nañ ko rey fuñ ko gise moom Kaab ibnu Suhayr borom baana soadu faqal bil yawma matbuulu mutayyamun israha lam yufda makbuulu xasida googu xazal la ko tàmbalee di ci di ci am lu muy feeñal waaye bi mu di woy yonent bi di woy yonent bi ginnaaw bi maska woo muuru di ko woy ba egsi ci un bitu anna rasulallahi awadani wal awfu inda rasulillahi mamuulun daal di muri mu gis ni yonent bi muuñ na mu muri kaala gi yonent bi solal ko mantoom bis boobu la yonent bi musalaat deretam moom Kaaba kon woy da ko doon def pour musal deretam moom Kaaba te teewul mu jëlee ca mantoom yonent bi solal sa ngeen demee Sëñ Tuubaa moom ba mu ne umbirtu anna rasulallahi wax Kaaba dani umbirtu anna rasulallahi aw adani informe nan ma ni yonent bi yàlla bi tëkku na ma mu ngi may menacé waaye nag wala aw ci njéggale ak baale inda rasulillahi mahmuulu lu ñu yaakaar la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njéggale ak baale mu yaakaar xoolal yonent sëñ Tuubaa moom bi muy waxaat lu mu wax undirtu anna rasulallahi basharani moom waxul aw adani informé nan ma man sëñ Tuubaa ni yonentu yàlla bi ndeysaan allahi basharati wal misru inda rasulillahi mamun masha allah kuninu hada rasulillahi basharati wal misru inda rasulillahi mamun ndeysaan laa yaqulu inda dari wasabqatani لتقتزي نعما بالدين لا تمر صبرا جميل لما قضيت بمن نيسان أبى عليه سور مجال نيسان في عني سبيل yàlla bi sallallahu alayhi wa noonu la ko sëñ bi waxee nga xam ni kee ku baax la ndax baax mënta nekk mënta weesu nga bokk ci saxaabatu rasulil kiram waaye gis nga waxam tëkku la wax yonent bi menacé na ma may sàkku njéggal di ko yaakaar ci moom waaye moom dafa wax ne informé nañ ma yonent bi bégal na ma man sëñ Tuubaa bégal na ma unbitu anna rasulallahi basharani te wal bisru inda lu ñu yaakaar la lu ñuy xemmem la lu ñuy mébét la ci yonent bi yàlla bi moom gis nga euh, sëñ nag lépp loo xam dañ koo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ma xaw a yu mel noonu dangay gis bu ñëwee daf koy daf koy bindaat moom wax la ko ca yàlla la ko kon maa ngi doon leeral rekk ci ta'zimu bi sunnati ni tagg yonent bi amee solo ak ni nekkee sunna ci li nga xam ne nii mooy euh, gàmm joxe ñam wi sëñ Tuubaa wax na ko walaw bi qadri dirhami dégg nga faman taaman hayya'a képp koo xam dafa préparé aw ñam jox ko ñi doon jàng ci guddi gàmm te joxew ñam yonent bi sallallahu alayhi wax na ni bokk na ci li mën a dugal nit ki aljanna joxew ñam kon su ko defee loolu mooy li jëm ci li nga xam ni mooy gàmmu su ko defee kon li ñuy daaneele mooy seexul xadim radiyallahu anhu ci point boobu mooy weeru gàmm bu daan tàggoo day mel ni ku amoon gan gim gën a bëgg te amul ci moom euh, li nga xam ni mooy doyalul ci moom war koo tàggu dangay ngay dégg muy wax ak weeru gàmmu loo xam ni soo dégloo wax ji dégg laa mu arab dégg muy wax danga naan jëmm lay waxal jëmmi nit te fekk waxut ak jëmmi nit waaye nag nañu xam ni Sëñ weer yeeg lépp jëmm lañ ci moom dañuy nekk jëmm ci moom te li koy firndeel mooy lii abal rabiu siwal idbaari bi niami min baadi iqbaalihi bil ard wa niami nee na weeru gàmmu de bañ na rabiu bañ na ni moom daal lu dul dem du ko def bañ na ni lu dul wëlbatiku rek dellu du ko def yóbbaale ay xéewalam min baadi iqbaali ginnaaw bi nga xamee ni ñëw na gane siñu gane ay xéewal yu dul jeex mu ni abar rabiu siwa tawdii murtaxila bima lahu min busharatin wa min karami nee na weeru gàmm daal bañ na ni moom daal bëggul ludul tàggoo tàggoo woon ma ginnaaw dem yóbbaale mbégte mi mu indi woon yóbbaale teraanga yi mu indi woon moom kat nee na day dem li mu indi woon ci xéewal ak mbégte mi doon dund ci moom weer nee na daal dem jot na lii sëñ Tuubaa mi ko daan wax ci mujjantalu gàmm fan yi mujj ci gàmmu la daan wax wax yu mel nii naan adar rabiu rabiu almustafa wazari siwa rawaaxi wa gayru sayri lam yarumi nee na war weer li nga xam ne mooy weeru Mustafa bañ na ni lu dul dem rek du ko def weer bi nga xam ne nii te nee na sàkkuwul nag lu dul ñu bàyyi ko mu dem tàggoona ba sonn téye nañ ko ba sonn mu ni moom daal siwa sayri lam yarumi sàkkuwul lu dul ñu bàyyi ko mu dellu ba déwénati ba déwénati xoolal wax di wax ni fa qultu xiina aba gayra almasiri lahu sir sir ya rabiu wa ma fii minka min saali wa ma min si minka saali nee na bi nga xamee ni téye naa ko téye mu bañ ni lu dul dem bëgg ko ma ni ko ah demal waaye boo demee boo demee ci ngën ji mbindéef yow weeru gàmmu boo demee ci ngën ji mbindéef dégg nga siriya rabion waaye booy dem na nga xam ni ma ci yow wama fii minka min yaa ngi dem waaye xamal ni man awma ci yow li nga xam ni mooy ak doyal doyaluma ci yow sir rachidan bi fuaadi ya rabia ila man kunta barfan lahu waqra lahu kalimi yow weeru gàmmu demal te yóbbaale sama xol yaa ngi dem waaye doo fi bàyyi sama xol sama xol gunge na la ànd ak yow te boo demee ba ci ngën di mbindéef yonentu yàlla bi waaw na ko jottali sama nuyoo boo demee jottalil ma sallallahu alayhi wa sallam sama nuyoo waqara ilayhi salaami dégg nga wax ni sir rachidan li rasulillahi sayidina waqara ilayhi salaami min yadi wa fami boo demee na nga jotal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama nuyoo boo xam ne nuyoo bu bu jóge ci gémmiñ la waaye nuyoo bu jóge ci xalima na nga nuyul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam weeru gàmmu ni ko wax ni wa qul lahu ya rabi'a alxayri inna lahu huna xadiman bima yurdihi saa xidami maa ngi lay yóbbante tam ci yonente bi ni ko boo demee ne ngën ci bàyyi nga fii ab liggéeykat bu koy liggéeyal boo xam ni ci lim bëgg rek lay nekk li koy bégloo rek ci lay nekk boo demee nag ma waxal loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ko ab liggéeykatam yi fii bu koy liggéey ci liko ko bégloo rek ci lay nekk wa qul lahu ya rabi al xayri inna lahu huna xadiman bima yurdihi zaxidami lahu xadimun yusalli bisalaami huna alayhi bil ali wal ashaabi bil qalami boo demee nee ko moom ngir ji mi def yow weeru weeru ne neel ngir ji mi def bàyyi nga fii ab liggéeykat boo xam ni ñi ngi koy liggéeyal nekk ci di julli ak a sëlmal ci moom di ko tagg rek boo demee nag ma waxal loolu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam la daan tàggoog weeru weeru gàmmu Cheikhul Khadim point bi nga xam moom mu dañ koy résumé rek muy ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa ziyaare ko moom yaakaar naa ku nekk gis na euh, ni ko irwaaw na di nettale naar bi ñuy wax Ahmad Sëñ Tuubaa ci fan yi mujj foofu nag bala may sori ma leeral lenn ci li tax lenn ci li tax sëñ Tuubaa demul war a ziyaare ji lu weesu zahir si nga xam ne ñun ñëpp xam nañ muy daa amoon empêchement physique ñu jàpp ko tubaab yi téye waaye bokk na ci mooy suñ borom bu ñu jàng histoire dañuy gis ni xool ñi mu bëgg te jige ko lool da leen di nattoo ca lañ gën a bëgg moom la leen di nattoo xañ leen nañu xool yonent yàlla ibrahim suñ boroom kenn ñu ko jige lenn di feesaat sa xol lu muy moom bu loolu naree am dalay natt tegle épreuve ba xam ni moom yàlla moo jiitu ci sa xol te lu mu def ci yow neex na ko mu doore nag indi xéewal yi yonent yàlla ibrahim ba yàlla yëree xol ba gis ni am na fu ko doom ji Suleymaan toll su ngoroom dañu ko rey ko loolu ay seetlu la dañu ko rey ko am nañu wax ni sax tànqam lu na gént gi ñetti fan te géntug yonent xam ngeen ni réalité la laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bil xaqi la tadxulunna al masjid al haram aaya jooju li tax mu wàcc mooy saxaaba yi dañ doon sikki sàkk ah ndax ba ñu xëyee dem dugg ñu màkka ñuy sikki sàkka ni moom moo gént ni dañuy dugg màkka te te tere nañu yàlla wàcc aay ni leen géntam gi dëgg la réalité la waaye nag la tadxuluna al masjid al haram insha allah day fekk mu soob yàlla rek waxu leen benn bis fu mu ko soobee di ngeen dugg màkka waaye bis ba ñuy dugg fekke nañu gis nga ba mu demee ba war a rey doom ji ba teg paaka bi ba nga xam ne sax moom ci bopp moom Ibrahim jàpp na ni doomam la rendi fekk suñu borom def na miracle bi muy def ci diggante ndax daa takk ay bëtam xoolu ko fekk yàlla li muy def def na ko te yëgut moom deful lu dul xëpp ay bëtam gis ni nekkete am xar lar bi kon kooku dëggu na ca natt ba muñ na natt bi ko yàlla teg muñ na ko suñu borom xam ni muñ na ko suñu borom ni tànn naa la def la ngay njiitu mbindeef ci kaw suuf moom yonent yàlla Ibrahima bu ñu jëlaatee beneen misaal yonent yàlla Yuusuf alayhi salaam ki nga xam mooy yonent yàlla Yaaqub am na fu ko Yuusuf tolloon suñ boroom lan ko nattoo mooy xañ ko ko fanweeri at ak ñett mu koy jooy ba jële ca silmaxa ba silmaxa ga kere ba muy la la la la silmaxa ga wérewaat fanweeri at ak ñett yi nga xam ni sëñ Tuubaa yàlla natt na ko ci loxo noonu yu saay-saay yu bon ñu téye ko xañ ko lim gën a bëgg te mooy dem Madinatu Munawwara ak dem Touba ki mu gën a bëgg tegul tànkam bu Touba tegul tànkam war a waaye nag muñ na ko muñ na ko muñ googu nag mooy li la yàlla di yéegee di la yëkkatee jox la darajaat yi lay jox tax dafa yër sa xol gis ni li nga gën a bëgg mooy lii te sëñ Touba jamono boobu lu lu matérialiste nii luñ man a laal muy barab. ñaar la ci gënoon a bëgg mu ne Touba ak Madinatu Munawwara suñu borom xañ ko ko xam ngeen ne Touba tegaaru fa tànkam ba ni ko sëñ Basiru indee ca guddi keroog boobu ca weeru tam xarit ba waaye tam li nga xam mooy dem Madinatu Munawwara tegu fa tànkam ci ci ci li ñu gis sa zaay waaye da ngay gis muy tindi tuuma di wax ni fal qalbu yahtazu xubban zawra rawdatihi يا ليتني طرت أو لي كان ذرنوف أو نلت زادا بليغا أو قدرت على قطع مهامي حيث الشوق مألوف لكي أزور رسول الله ملجأنا يوم القيامة مهما حاز التخويف wax yu tumuraanke di wax ni sama xol bi ñu ngi vivre fal qalbu yahtazu xol baa bi yëngatu ñu ni ko luy yëngal sa xol yow sëñ Tuubaa mu ne xubban zawra rawdati ngir bëgg a ziyaare ji rawdaam ba rek waaye yemu ca mu ni yaa tamit tëj ak a neexoon ma sax ay laaf naaw man sëñ Tuubaa yaa lay tamit tëj ak a neexoon ma naaw ni fa cëpp lii nag mi ngi wax ak ñun ci côté physique mais spirituellement moom Seexul Xadim jugul ca barabu Yonent bi wa sallam jugu beneen bi tam ñu fàttali ni ku ñuy wax Ahmad Rafaai di ponkal bokk na ci al aqtaabul arbaa boo demee ci tasawuf ni fiq di waxee al aimmatul arbaa muy imam malik ahmad ibnu hanbal shafii malik ak xanafi euh, euh, ni ñu leen di waxee ñeenti imam yi boo demee ci tasawuf am na ñun tudde ñeenti xutbu si ahmad rafaayi ca la bokk suñ fal tudde na ko doom ahmad rafaayi moomu ci lu wér dem na ci barabu yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu mutawaatir la mooy lu ñëpp fekke ñu bari dañ koo fekke ziyaare yonent bi wax ni ko fii fi xaalati lboxdi ruuxi kuntu ursiluha tuqabbilu l arda anni wa hiya naibati fa haa hiya dawlatu l asbaahi qad raxalat fambut yaminaka kay taxda biha shafati yonent bi génne loxoom ci biir bàmmeel bi ñëpp di ko gis mu fóon loxo yonent bi dugalaat yonent bi dugalaat te loolu fekk yonent bi jóge fi lu mat juróom ñeenti siècle mu ni ko ba may sori maa ngi doon yabal sama roox mu ziyaare barab bi tey nag sama jëmm moo ñëw ànd ak sama waa dëkk génneel sa ndeyjoor bu tedd bii ngir sama tuñ yii man cee barkeelu yonent bi génneel ko loxoom bi mu fóon ko waaw ana Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul bu ñu woon cëpp Madinatu Munawwara te li ma mën a mooy cofeelu si Ahmad Bamba bu ko teg ci balance teg ko Ahmad Rafaay yi mu wat ko si Ahmad Bamba wat ko loolu moom amul lu ñuy du waaye ku ne xam na ni Seexul Xadim ci histoire li ko li ko li ko Yonent bi sallallahu boro wasallam jaral lu mu def xam na kon yaakaar naa ni bu boobaa loxo kese du génn jëm Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana jóg te boobaa fala àdduna di yam fala àdduna di yam Yonent bi bu jógee foofu rek àdduna dafa tukki kon am na ci mbir yoo xam doo ko mel yàlla lu mu programme na suñ borom lu programme bi xam na kon suñ tubaa nii la wax ne aka neexoon ma ami laaf yi côté physique la jëmm lay wax ni fa cëpp nee na aw lii kaana dur nuuf waaye aka neexoon ma am sax bu ma mënta am laaf ma am gileemu tukkal gileemu tukkal boo xam ne ni dana mën a mën a yóbbu aw niltu zaadan balixan wala ma am sax yóbbal bu doy sëkk aw qadirtu ala qat'i mahabi wala sax ma mënoon a doxal sama tànk man suñ tubaa xotti désert yi dara du ma empêché ndax oo xii xa gis ni dañ ko empêché moom mooy ki nga xam ni empêché nañ sama yaram physiquement xii xa gis nii wa wëllësi xii xa gis nii an ziyaarati dañoo empêché sama yaram physiquement ci ma ziyaare ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lakin lisaan lakin na lakin lisaani lahu kalxat bi zawaar waaye li ma mën a waat mooy sama xol ak samaw làmmeñ moom ñoo ngi koy ziyaare fu mu bi may tàmbali maa ngi wax ni woon a Ahmad ni ko waajal dañoo war a dem ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ahmad moo nettal nee na ma dem Mauritanie wax sama waa kër mi leen damaa war a ànd ak Ahmadu Bamba nga xam ni Sëñ Tuubaa jox na ko alal ju takku ni ko demal nga waaj ñëw ñu ànd Màkka damaa war a aji ziyaare ji yonent bi sallallahu moom Ahmad moomu. si mu nekk ci madinatu munawara fa la dégg ni colonialiste si tubaab yi jàpp nañ Cheikh Ahmad Bamba dafa xam dafa xam ndax moom sëñ Tuubaa ni ko demal nga wàcc boo ñëwee ñu ànd Màkka aji ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekket suñu borom dikk naag dogalam suñu borom dikk naag dogalam kon sëñ Tuubaa fii la tolloon ci ziyaare di wax ni yamiinu rabbi mazarul mujtaba afdalu min mii bilaadi zahaba waat naa ci sama borom man sëñ Tuba ni ziyaare yonent bi yàlla tànn moo ma gënal adduna bi yëpp ñu def ko wurus muy or ak argent ba mu fees dell li ma Cheikh Mat Bamba lii maa ngi waat yàlla ne ziyaare ji yonent bi moom ko gënal rabbi waat naa ci yàlla ne mazarul mujtaba afdal min mil il biladi zahaba daan wax ne yaa rabbi zawral bayti wal madina ziyaaratan anil riyaa masuna yow suñu borom ay waay maa ngi lay sarax ziyaare madinatu munawara ak sa néeg bi maa ngi koy yaakaar ziyaar boo xam ne day mucc ci njistal day mucc ci lépp njistal nga xam ni lépp wax na ko ngir bëgg ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni daana wax ni kullu zamanin laa azaalu atlubu liqaahu wa artaji wa arxabu ci fatul naan suñ borom kabura azza maa talabtu ya aziz min ko wa ma wa alayka bi aziz nee na chaque instant du ma deñ di sàkkoo dajeeg moom yonent bi sallallahu wa sallam loolu nag mbiru biir la dama ko cee dugal rek ndax mujj na ko am naan yàlla li may sàkku nag xam naa ni kabura rëy na li may sàkku rëy na wa azza tey jafe na kabura wa azza ma talabtu ya aziz li may sàkku rëy na jafe na yow aji tedd ji waaye wa maa huwa alayka bi aziz jafewul ci yow yow borom subhanahu wa taala li may wax sànq ci jinaas ci rabia gis nga lim ci liggéeyaat fii ñaari aziz yooyu aziz bu njëkk bi ci laamu arab lu jafe lay firi lu jafe azizul ñaareel bi di firi turu borom bi subhanahu wa taala kabura wa azza ma talabtu ya aziz minka wa maa huwa alayka bi aziz li may sàkku yow aji tedd ji jafe na lool waaye nekkul lu jafe ci yow te mooy ma dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan salaatan bu ngeen demee ci alaaman giñ wax ni saa boo koy jàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jël ko ci sa bopp alaaman sëñ Tuubaa mën cay def salaatu naan salaatu bi li may ñaan mooy sunu borom wan ma fi kanamug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jahran salaatan turini huna wajhahu ayaanan liyasfiya qalbi jarih salaatu bi yàlla na ma ci yàlla wone kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir mo mën a saafara sama loxo sama xol bi nga xam dafa ci bëgg koo ci bëgg koo gis li yasfiya qalbil jarih kon Cheikhul Khadim nii la ci bëgg ziyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam zawril madin daana wax ni daarul mateema yazurha zairun li hudan yasa hiya daaru daarul xaq wal diini dégg nga carum naa sukural lasi il kafi wannooli nee na kër googu mooy kër goo xam ne saa bu ko aji ziyaare ji ziyaare daarul mateema yazurha zairun li hudan te ziyaare yub rek mu jóg dem ziyaare ji ko nee kooku kenn mënu koo texe kenn mënu koo teree texe ndax lu tax hiya daaru bu ñu wax kër daal dëgg dëgg kër Sëñ Tuubaa na foofaay kër hiya daaru daarul xaq wa diin foofu mooy kërub dëgg mooy kërub diine mooy madinatul munawara daan wax waa madinatul munawara fustum bi kawni ibni abdillahi jaarakum yéen madina kat ñee naa leen ndax taxe ngeen li leen may ak taxe mooy yonentu bi yàlla bi mooy seen dëkkaale moom ngeen dëkkandool fustum bi kawni ibni abdillahi jaarakum fii la tegoon madinatul munawwara daan wax ni wax ni yasuuni mawti wa ayni lam tara wa lam ara madinatal munawwara ah dana ma metti lool danaa am lu ma naqari man sëñ Tuubaa ma faatu te sama bët yi gisul madinatul munawwara yasu yasuuni mawti dana ma metti sama faatu dégg nga kon dafa mel ni seen liggéey bii koo defali madinatu munawwara gàmmu leen sëñ Tuubaa madinatu munawwara mooy la sëñ Tuubaa doon bëgg di ko wa yéen a ko war a jëmmali physiquement muy ci jëmm ci jëmm yesu ni mawti waa ni lam tara wala aral madinatul munawwara daana ma naqari man sëñ Tuubaa ma faatu te mu bët yi gisul madinatul munawwara kon ci mooy Seexul Xadim ak gàmm kii mooy Seexul Xadim ak ziyaare bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi ñuy daaneele nag mooy bu dee wàllu biir gi moom kooku lu sori la يزورك مني حيثما حيثما كنت يا محيي فؤادي وروحي بالبشارات ذا طيب bu ngeen demee ci xasid ak yaa mukrim af day fi jaaran kaana aw zaara ca mujjantal ak mujjantal ga gis nga mi fay leeral di sant yàlla sëñ Tuubaa dëkkandoog yonent bi la ku jóge Tuubaa boo demee Madinatu Munawwara di ziyaara yonent bi fa ngay fekk Seexul Xabiib fa la dëkk moom dafa bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mi ngi koy wax lu bare bari sax di wax ne suñu borom hajji taqabbal ca karam naa loolu ko aja koy wax sama aj gi nanga ko nangu fan lay waxee xanaa waxul physique ndax physique maa gisan sëñ tubaa aji mais mi ngi naan suñu sama aj gi nanga ko nangu kon aji na sëñ tubaa aji na ci lu nit gisul ndax mi ngi naan yàlla nangul ma sama aj ziyaare bii ma ziyaare yonent bi nanga ko nangu loola nag mbir mu sori la mu spirituel la kon ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nangu di bi may leen tawfiq ba ngeen àgg fa ngeen jëm ci jàmm def ziyaara boo xam ne ni mu ko waxee ziyaaratan ani riya masuna yal na leen ko sëñ Tuubaa defal bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ Xaadim ñu ngi sant di jégalu euh, guddaayu kàddu gi di ñaan lépp luñ fi wax rek yal na nekk luñ mën a jariñoo di ñaan borom subhaanahu wa taala defal ñu tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa